cette coalition composée de près de 200 partis et de mouvements de soutien est non seulement la coalition la plus grande, mais elle est la plus forte, la plus agressive. Cette coalition qui a remporté le référendum, qui a remporté les élections législatives au la qui s'est constituée comme avant-gardiste pour porter le Sénégal au panthéon des grandes nations du monde, c'est-à-dire vers l'émergence économique. Le président Macky est un président d'une de un président qui ne trompe pas son peuple, un président qui a un projet, un projet de société, un projet structurant. Je ne veux pas citer les réalisations du président en septembre, Mais je peux vous dire que le président Macky Sall, par sa générosité, par son sens du devoir, a su créer au Sénégal un fonds destiné aux couches vulnérables. C'est la bourse familiale qui couvre aujourd'hui 400 000 personnes. Et je peux vous assurer, avec l'avènement du pétrole et du gaz, en 2022, si vous lui renouvelez votre confiance, non seulement le fonds sera étendu à d'autres personnes, mais ces fonds ne seront plus des fonds trimestriels, mais des fonds pas mensuels, bimensuels. Mensuels, c'est trop cher. Mais je sais la volonté du président Macky Sall c'est accompagner les Sénégalais et Sénégalaises. La couverture maladie universelle. Aujourd'hui, nul n'ignore que les jeunes, les plus jeunes, les enfants, mais les personnes âgées bénéficient du soutien de l'État à grande échelle les étudiants. Le président non seulement a augmenté la bourse, mais le président envisage dans un bref avenir d'encadrer plus et mieux nos étudiants.

waaye ilaa Touba neexu leen a. ilaa Touba neexu leen a. ilaa Touba neexu leen a. les express régional neexu leen a. dëkk Diamniadio neexu leen a. aéroport Niass neexu leen a. ak aéroport Touba bi mu waaj a dem. ak aéroport Touba. ak aéroport Touba bi mu waaj a dem. kaamil yaay kumba cimboo yàlla na fi yàgg. waaw yéen. yàgg moom. di dem ci mbir mi. waaw candidat yi des xam nañu. kilifa daa ñii taxal gi mu dëkk mu depuis Senghor ba ci Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade dañ leen bëgg leen ko wut mooy mu ambulance toujours ko am maa ngi ko jox. kenn lu ko fàtte kenn lu ko ko jox. moo ñu fi indil bourse familiale moom ñu gàtt gàtt am ay nit yu fay yu ko ñetti weer. moo ñu fi indil mutuelle de santé am ciy fan boo ko yëkkati am ñu def ak dara di fan. liggéey la ko daawee xaaj yow daawee mooy ci mat mat milliard ñu ngi mat di ko gis ko. lii nag mooy ñun dañ koy dégg comme yàlla mu ko xam mooy feebar jalis jalis ku ne xam ne jalis comme dal boobu ci wax am saaka day fam kenn ñi ko maye pour sax ku mu dal ngeen am comme galaat ci sangam ñu koy fam ci kon loolu donc ndax village bi Macky Sall damaa jël leen bu état tubaab beeg yëpp da koo jëwatu xam nga lu bëgg ñun bu naxante suñu commune bii suñu commune bii da ko war a sàggale ba mu dem gannaaw da ko toog am diggante tubaab ndax dafa am lu mu juróomi kilomètre mun na am tëdd amuñu hôpital amuñu forage benn fi nekk depuis 66 ba léegi moo fi nekk ci la ñuy naan dañuy jeex. suñu doom yi jàng école am na ci suñu doom dañuy am en transition dem baax bi duñu jàng. xale bi jàng ba am ñëw ba nga dem jàngi def sujet ama foo dugg xale ba commune bokk Mbacke dañu tan dugal ay taxawal loolu moo gën naqari bokk bi ñu bëgg dafa am loo xam ne état ko mën opposition opposition mënu ko Abdoulaye Wade ñu àndoon depuis Senghor ba Abdou Diouf vingt ans mu ngi opposition ñu sam tànk bu mu dox bi mu nekkee président la ko doon man def bi fi liggéey la mu doon liggéey mënatu ko fi fi toog foo ko man nañ si bopp yi ak suñu xel bu ñu kenn nax côté Macky Sall mu am cent pour cent bu avancé ñun ñun ñun ko avancé bu doon Macky Sall loolu même doon daanu ñun nañ ko ñu ko xam bu kenn nax ñu fi ñëw bokk dem ak jëm yëpp ñu mu sa dëgg la kenn mu daal dig toog sa kàddu jeex mun na koo may ñi fi ñëw ñëpp dañuy dañuy naan Sonko Sonko Sonko te boo ko def di fàq ba liggéey rek boo ko nekk mosuñu dem rafal dara te ñun PDS bi bi ñu faroon bépp deux mille quatorze léegi ñu ngi tubaab yi ak mbàkk yi bon mosuñu gis kenn ku ñu rafal am ñaan wala dara pour ça am kon ñun gàcce dara ñun ñun PDS ñoo ku ñu ñoo ñu dara nan ñu ci ñu man bi ñu am am ñu ko lii may wax nag damaa dem danoo dem ñun ñun ñuy toog ba toog sa assurance nii. moo ñu ko salaam léegi pour la saalam ñu xam ñun dañoo nekkoon PDS waaye ñun dañuy wax di wax di di dellu gannaaw dañoo jógee PDS dugg après ñu génn mukk ku génn bàyyi nit ñi te li ñu mën def li ma xam mooy ñun ñoom dañuy PDS bu si ëppandoo noo ngi noo ngi après. loolu dañuy gën di wax ñu ñu bokk ñu ñu bokk kenn kenn ñun ñu doon fale. comme ñoom fan dañoo appel jàpp na appel day am ci 100 pour cent. mbooloo kilifa yi am am maanaam ci suñu wii ak suñu mbooloo ànd nañu li ñuy wax ñun duñu naxante duñu nëppoonte jël kenn nax téeméer doon ci poche jëm jëm dara jëm jëm jëm dara seen kat yi jëlee ko bis baa ngi wooteel Macky Sall. ñii ñii donc jàmbaar bii bu ñu ko wootee léegi. jërëjëf jërëjëf

coow kor man ak ibege ñu samp ñu mbari département Mbacké mu ñew assemblée comme député yéen ñi andol Ramsa Sagar Gueye yalla Sagar Samb yalla ko yalla yërëm seni saar ak mag seigneur Mbacké Misra barabou Bousso ñëpp décidé à l'unanimité pour ñu tànn ma kon mënuma leen fey léegi nag politique li may wax si yi wax naa ko Dakar bu doon njàngam kii docteur la mais man professeur titulaire agrégé la ci politique ndax àgg naa fu plafond cër yëpp am naa ko ba am boo xam ne fii ak juróom fukki at benn sénégalais dootu ko takk président du parlement de la CEDEAO fukki réew ak juróom ma jiite leen jiite téeméeri député ak fukk ak juróom yor administration boo xam ne mat na juróomi téeméeri nit nekk sama ndigal ak budget 17 milliards dootu am wax naa ci internet bi maa koy répété damaa wax ni ci kàttanu yàlla ak palub Macky Sall bokk naa ci fukki sénégalais yi ëpp solde ci Sénégal gis naa ñu koy commenté mais looloo am